Bamba woon a waa géej ah mbokk yi ku nekk xam ne ni màggal Tuubaa gi lii dafa dajek nawet bi a ah, waral ñu ni leen ay baas yu mucc ayib dëppook nag jamono ji ak nawet bi baas yoo xam ne day tëju fermé wu baas yu mucc ayib taaru lool tarafet waaye ku ci bëgg a am nooy def xanaa nga woote ci numéro téléphone bi 77 251 04 05